ma ñëw mais ici. je je pense que. Euh, <laughs> euh le, euh, aujourd'hui de, de, de, de la journée. Ah.

mooy mbata ma lay lekk rek fi ay kilifa ñoo fi ne léegi. dégg nga wax. waaw. o o o o suuf bi. waaw. et et et e, e, monsieur Demba Seck. monsieur Demba Seck quoi. et et moi elle e a elle a bàyyi ko su au suñu kër. suñu kër waaw waaw waaw.

Moussa Bell dama la génneel soo bu sari. Viesi. ma ñoo ko maa ngi nii. nga garaay bi nag de dafa sadik de. waaw waaw waaw. garaay bu sadik gi noonu. garaay bu sadik nga noonu quoi. ñëw na de ak xam nga Kamu kamu maa ngi nii. ñëw na de garaay quoi. ay waaye garaay bi dama. xam nga xam nga lu ma leen yëgal. waaw bu leen ma fontoo wax leen fii li ngeen war a wax. waaw oh, waaw. Oh, oh. boo leen ma fi waxee lenn loolu ma fi war a wax. waaw waaw yéen xam ngeen. xam bu baax a baax. xamante ne bu baax. loolu moom ndax yow yaa rek ànd yow quoi. waaw frère. monsieur le maire dañoo quoi. monsieur le maire. ñëwal. booy. waaw. monsieur le maire. waaw dañoo quoi. ñëw dina ko daax. Eh, eh, eh, monsieur le maire tey. waaw. daa xam. dafa xam quoi. xaw a somb parce que koñ bi yëpp eh, eh. dafa leer nañ sa pusa pusa waaw pusa waaw su su wanee excuse guddi waaw ay eh, coppet donc pusa dafa xaw la koñ bi daal la na moom de boo fiy suuf ñëw. et tawee. fii. waaw. ay gaal. ay gaal quoi. ñooy jàllale nit ñi dem ak dem. monsieur le ay tali karo la euh, dóor ba wala xale jigéen yi. seen seen yooyu dobe. tap tap tap tap tap tap léegi góor ñi sax. waaw. maire yi nga xamante ni sax dañoo amee ay ingénieur ay ay ay con ay konko bara yo yooyu noonu cap cap monsieur le maire moo fi def kër kar yooyu monsieur le maire moo def loolu quoi monsieur le maire Demba Seck may la ma yéen da nga ma wax léegi da nga may wax ma dem wala xam nga man seen yëfu dof dof lii. waaw waaw waaw. ah. yéen suñu grand frère quoi. waaw mu daal li monsieur le maire def rek. lu monsieur le maire lu mu waral. waaw xam naa loolu la fi def. dëgg la mais yow da nga woo. waaw man ma ñëw. waaw. man tax suba ba léegi li ma sëñ bi def ñoo ànd di ko def. dëgg la ah mais léegi da nga may wax libéré ba ma dem. waaw ma libéré kon demal. <laughs> kon demal. Ibu kon demal demal. Ibu man neexuma la demal demal. demal waaw. yow kay kay kay kay yow kay damay dee damay dee. demal demal demal demal. damay dee dee. kay kay kay yow kay kay kay kay. damay dee tamit. non dem yow moo tee si gën a xanaa. ah ñëwul wala ma dem. ñëwal. demal demal demal. Ibu ma taxawal. yow da nga bokk si ñun quoi. yaa ma de waxal rek li ngay wax ma dem. loolu question la jël sita da nga jël sita tuuti. non da nga jël sita de. pour bien. Ibou. monsieur le sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a de man mosuma gis de man ma ñu ko bayaan man mosuma gis lii. monsieur le maire loo dund doyul. loo dund doyul sama xol laa lay ñaanalee dégg nga sama bul jooy bul jooy góor day dëgër rek. góor mu góor góor lu mu mën a dëgër dëgër dëgër bu waree wax soxlam dafa war a bul jooy góor day woo bul jooy. waaw waaw noppi nañ. waaw yow yow man ngay waxal. ma dem wala lan man tama taxawaay bi moo yàgg libéré ma. waaw libéré naa bu ma kenn woowaat. waaw waaw dama dama kaay kaay kaay kaay. <laughs> est-ce que xam naa mooy sax quoi sécurité mooy sécurité la taxaw benn place rek di leen nii. on s'en repos on s'en repos. waaw waaw waaw. on s'en garde. ay eh, deux deux deux cent deux deux cent quoi. da nga xaw a bokk nga xaw a bokk ni ah. Pallé Yara bi day am. dem seen kooku lu mu def nii dafa dafa garaaw. dem seen ñoo ko sa ginnaaw. ñëw sa ginnaaw ñëw sa ginnaaw si kàttanu yàlla incha rabi li ngay yóot si kàttanu yàlla laa wax de sama xol laa lay ñaanale quoi man gisuma yaay gisuma papa. jërëm jërëm laa jërëm laa te jërëm lu mu ñaanal si xol dafay nangul si kàttanu yàlla si nga war a toog di toog si kàttanu yàlla incha allah quoi. mag ñun la foog te grand ému fu mu dugg dañ fay dugg. sur la leen vous dem bu leen là tamit bu leen oo kenn artistes yi sari yaa ngi nii <laughs> ñoo du matin Elle a un chemin. Elle a Eh, et où Non, elle a la ah, Dem, nous une, voilà. Je la <laughs> play. I'm not going to play. Lala. I will aim and tell them. Militant. Militant. I will aim and tell Yang militan dari aku tuh, yang militan dari aku tuh moda. Dari yang dengan ni kubuhin moda, lu ni kubuhin moda abdu dengar. Asal kayak mami, dah nyawa ya aku. Kau mami, oke, lu lah, mau mau dia, mau mau dia gini kejerahin. Nona bisa mau, sedang. waaw dëgg moom Sadick de. léegi nañu may soog kon. liggéey. léegi nañu ko soog quoi. ok njëg de la. cameraman bi day wokk rek. waaw waaw waaw. ak sunu papa. dafa seen tamit gis nga ko. paa bi dafa Sadick. waaw waaw. waaw dëgg la. ndeysaan. parce que yow Mais après euh, le dernier découpage qui a eu lieu, donc avec l'arbitrage euh, au niveau euh, du préfet, donc Zach Mao est maintenant rattaché à Rufus-Ouest. D'où maintenant notre présence ici pour initier un concept que nous avons déjà mis en place, au Samokogne, désinfecter Samokogne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec l'équipe avec euh, laquelle je suis, donc on est venu depuis ce matin pour désinfecter, mais aussi euh, changer les ampoules euh, qui sont dans ce quartier. Et... Effectivement, parce que il y a de cela deux semaines, nous sommes venus rencontrer un groupement de femmes lors de nos échanges, ils nous ont parlé d'un problème euh, euh, qui leur tenait à cœur, c'est-à-dire l'insécurité qui est galopante dans ce secteur, parce que manquant euh, de lumière, donc quand ils ont fait appel à nous, on leur a dit que, Inch'Allah, d'ici les jours à venir, on va venir euh, recenser les, les, lampes et faire les rechanges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais en plus, elle nous avait parlé d'un problème euh, qu'elle vit avec euh, les moustiques. Vous savez que c'est une zone pratiquement marécageuse et lors des, de la saison des pluies, il y a eu beaucoup d'inondations, mais aussi le problème qui se pose ici, il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas encore en construction, donc ce qui fait que c'est le nid des, euh, euh, des, moustiques. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à faire cette grande opération. Euh, depuis ce matin, nous sommes là et présentement il fait nuit, mais nous sommes en train de continuer à faire le travail, c'est-à-dire changer les ampoules qui sont tout autour de ce quartier. Bon, au niveau de là, parce que ce n'est pas la première action que nous menons. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le concept L'air Socogne. Nous l'avons déjà commencé depuis 2014. Parce que qui connaît le mouvement que nous dirigeons, c'est euh, que depuis 2014, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les actions sociales, euh, nous aidons les populations parce que, comme vous le savez, l'insécurité est devenue galopante dans notre commune. Donc, d'où Maintenant, euh, ce concept que nous avons mis en place, qui consiste à changer les lampadaires dans toute la commune, parce que, euh, comme je l'ai euh, dit tout à l'heure, nous l'avons commencé il n'y a pas moins de trois jours. nous étions à Diokulwaga. il y a une ruelle qui n'a jamais bénéficié de lampadaires et nous avons mis là-bas des lampadaires pour sécuriser un peu euh, la population. Et nous avons d'autres ambitions, c'est-à-dire que Aujourd'hui, nous sommes à Médina Nous savons les euh, les problèmes auxquels les populations sont confrontées. On peut citer l'inondation. Et si Dieu nous prête vie, nous comptons mettre en place un système de drainage des eaux pluviales qui permettra donc euh, ces populations de, euh, de se soulager parce que le remblaiement n'a jamais réglé le problème. Et là, si nous faisons un système de drainage, nous allons mettre à côté des avaloirs ce qui permettra de réceptionner toutes les eaux de pluie et les drainer donc euh, vers euh, le système euh, d'irrigation qui a été mis en place par l'ONAS pour évacuer les eaux de pluie. Ah, parce que medina zak si Pikine la bok waaw amoon na tiraillement nag xëccoo boo xamante ne amoon na entre Pikine ak euh, commune Rufisque est. mais yàlla dimbali ñooy aussi euh, bi ñu ko euh, ñi nga xamante ni mooy autorités yi xeexee donc wax ci le préfet si boppam moom moo tranché et bi ñu defee bi mu tranché jël medina zak donc rattaché ko fi nga xamante ne moom mooy commune Rufisque Ouest Wala, jii sa teewaay fii gis nañ ni di taxawu comme niñ ko xamee depuis si suba ba léegi eh, ñu ngi fii yendu ak population bi te lii tax ñu yendu fii c'est dañ fi ñëwoon benn bés am ñu ñu doon eh, waxtaanal muy ay groupement de femmes ba ñu waxtaanee ñoom aussi si lañ ñu wax jafe-jafe yi nga xamante ne moom la quartier bi di dund te li ci jiitu nag muy manque sécurité te manque sécurité boobu lan moo ko indi c'est parce que làmp yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii yu si bëri danoo fay te amaana kenn changé wu ko ba d'ailleurs sax population bi ñu ngi may wax ni muy làmp yi muy poto yi muy courant bi ñoom ñoo ko fi defal seen bopp donc amul benn autorité boo xamante ne maanaam tey mën na wax ni courant tey làmp yi bu fi tàkk ñoom la donc ñu am euh, ñu wax ñu ko nag ñu ñëw fii indaale une équipe pour li nga xamante ne mooy làmp yi ñu changé ko donc euh, depuis sa matin ba léegi ñu ngi changé ay làmp beneen bi aussi ñu wax ñu ni ñoom fii euh, yooyu dañ leen sonal ndaxte comme ni ngeen ko gisee fii daanaka bu nawet bi ñëwee. yoon bi pratiquement dafay inondé té amna ay kër yo xamanténi manam maanaam kenn dëkku fi donc euh, yoo yeex yooyu yëpp dañ leen di sonal té ñun kuñu xam xamné ñun chaque année dañuy dugg ci kër yi di dugg ci quartier yi di def désinfection donc bañ ñu ko waxee ñu ne leen dé waxu du ba jëlee gessu la comme que lolu ñun dañ ñu ko xamee depuis 2014 ba léegi tooguñu at bo xamante ne jëluñu ay pompe jëluñu ay euh, produit euh, di pomper kër yi kër par kër néeg par néeg loolu nag boo leen ci waxee dañ ciy sawar ne leen dimanche prochain incha allah au lieu que ñuy ñëw di def euh, jaar jàll dinañ ñëw yendu seex yéen donc aña ndox yéen jël li nga xamante ne mooy pompe yi dugg ci kër yi mais koñ yi nga xamante ne aussi yooyu dañ fa daan euh, nekk muy am ay ñax ak kër yi nga xamante ne àggul yooyu yëpp dinañ fa jaar euh, ñu pompe ko donc loolu mooy suñu teewaay tey jii fi nga xamante ne moom mooy Médina Zac waaw comme li nga ko xamee dañu teg benn concept mooy leeral sama koñ ak désinfecté sama koñ donc euh, loo xamante ne commencé nañ ko tàmbali nañ ko donc ñetti fan ci ginnaaw ñu ngi woon jokkul wàgg euh, jokkul wàgg koñ bi nga xamante ne moo jugee lew na jëm ci jàkkee jokkul wàgg mosula am làmp ñun ñoo fa def ay làmp monté ko fa ba waa gox ba xale yi fay juddu ñu si bëri mosu ñoo xam ne foofu war euh, mosu ñoo gis làmp donc muy opération boo xam ne def nañ ko fa te aussi niñ ko defee foofu defoo ko Medina Zac noonu lañ koy defee ci quartier yëpp tey euh, li nga xamante ne aussi problème bi Medina Zac di dundu xam nañ ko problème mu euh, bu taw jotee nawet bi daanaka kër yu bëri dañuy nekk si ay jafe-jafe parce que ndox mi dañ leen di sonal ñun am nañ incha allah yéene Euh, def fi lu nga xamante ne mooy benn système de drainage des eaux nga xam ne mooy ndoxu taw yi système boobu bu ñu ko defee dafa am lu ñuy wax avaloir mooy li nga xamante ne maanaam ay fu ndox mi di daje. nga xamante ne boobaa dina ko mën a jël yóbbu ko si système bi nga xamante ne moom la fi waa ONAS def nga xamante ne ndox mu nga xamante ne mooy ndaxu taw bi dinañ mën di évacuer wu au lieu que ñuy jël di sëkk parce que sëkk déplacer problème la. parce que sëkk réglé wul problème bi problème bi mooy il faut que ñu def fi un réseau d' assainissement te fii dafa ñàkk li nga xamante ne mooy assainissement te loolu nag incha allah bëgg nañ daal jàppale ci population bi nga xam ne mooy Medina Zac pour que euh, bu nawet jotatee donc problème mu inondation dootuñu ko amati incha allah.